xiit mooy julli korite ak gu tabaski ñoo yemoo daraja seen waxtu mi ngi tàmbalee ci bu naafila daganee ba tisbaar jot diggante boobu mooy seen waxtu nga xam ne bu tisbaar xasee jot jeex na ku ko julleetoon doo ko mën a julleeti moo xam korite la moo xam tabaski la bu ñu nee julli gi it sunna la nag dañuy wax ne sunna la ci ku jumaa war ku jumaa war nag mooy koo xam ne góor la te gor la bu dee jamono yi daan teqali gor ak jaam di mukallaf dëkk ca dëkkub jumaa ba wala boog soreek lu tolloog ñetti mil rekk kooku la julli jumaa war ba tey kooku nag dañuy sunnaal ci moom julli korite ak tabaski bu dee koo xam ne nag julli jumaa waru ko am nag teqale ndax bu dee jigéen dañuy seet ba xam bu dee jigéen ji mag ja nga xamee ne góor ñi duñ ko geesooti moom mën naa julli ji korite ak tabaski bu dee ndaw lu jigéen loo xam ne amul taar bu tax góor ñi geesu ko te it waajul waajtaay wuñ koy geesoo ba tey kooku mën naa julli ji bu dee jigéen ju ndawe nag toolu ñu koy xool mu am taar boole ca mbaa mu waaj boole ca kooku day araam moom mu dem ca julli korite ga mbaa julli tabaski ga gone nag ak kuy tukki koo xam ne yéenewute sax foofa ñeenti fan daañu sopp ci ñoom kon ñu julli ji julli korite ak tabaski ku dikk fekk mbooloo musulman ñu sopp nga julli ko yow dong ki bu ñaar ñëwee mbaa ñett gannaaw bañ jullee bu noppi dañu bëgg kenn ku ne beru julli julli boppam tañ dañu defaat meneen mbooloo ndax sib nañ ñu defal mbooloo dellu ko defaat te ñoom fekk nañ mbooloo mi julli ba sëlmal julli korite mbaa tabaski moom bu dee ràkk bu njëkk ba gannaaw boo kàbbare kàbbaru armal da nga ci teg juróom benni kàbbar mu juróom ñaar muy ràkk bu njëkk te ràkkab ñaareel ba nag boo jóg jëm ci ràkkab ñaareel bi da nga wax allah akbar boo weesoo booba nag da nga cey tegaat juróom ko defee mu juróom benn ilimaan ji jiite nag ci korite mbaa tabaski bu kàbbaree yenn kàbbar yi am lu mu ca fàtte daal tàmbalee jàng kon na ko maa moom sàbbaal ndax mu fàttaliku ne am na lu mu bàyyi ci kabar yi su ko fàttalikoo te def ko baax na su ko su ko fàttalikuwul nag ba def ko na ko maamoom moom def du tee nag bu ilimaan dee sujjóot ndax bàyyi gam bàyyi benn kabar mbaalu ko ëpp maamoom mi day ànd ak moom sujjóot tey nag nga seetlu foofu ne kàbbar yi ñuy kàbbar ci korite mbaa tabaski dañ leen a fonk lool boo weesoo bu njëkk ba itam yee ca topp dañ leen a fonk ba benn képp ku ko ca bàyyi ñu digal ko sujjóot xabla salaam su ilimaan bàyyee nag benn kàbbar mbaalu ko ëpp ñu sàbbaal ko sàbbaal taxul mu def ko na ko maamu ñoom def te lu tee nag gannaaw bu su ilimaan fàttalikoo ne bàyyi woon na kàbbar ba tax muy sujjóot xable salaam du tee ñu ànd ak moom sujjóot ba tey it bu fekkoon ne ilimaan moom ay kàbbaram mat na maa moom kay moo manqué lay kàbbar ba tey ilimaan gàddul na ko kàbbar yam bàyyi mbaa bu dee benn boppee benn daal lu mu bàyyi ci kàbbar rek moom maa moom ilimaan gàddul na ko ko su ilimaan fàttee ci kàbbar yi benn mbaalu ko ëpp nag ba tàmbalee jàng ñu daal di koy sàbbaal mu fàttali ko daal def kàbbar ya dañuy bëgg mu baamuwaat njàng ma bu kàbbaree ba noppi mu baamuwaat lam jàngoon bu ko defee nag ñu digal ko sujjóot bax de salaam ndax baamu gam baamuwaat njàng ma ñu bañ a fàtte ne tey julli julli xiit gi moo xam kenn la moo xam maamam la bu xasee sëgg jëm ci rukkoo ba rek kabar bu mu fàtte woon du ko mën a defati da koy bàyyi rek te sujjóotal ko xabla salaam ndax sëggam sëgg jëm ci rukkoo ba rukkoo farata la te deesul bàyyi farata di dellu ca sunna ilimaan wax nañ ko na kàbbar ya di tollu ci raka bu jëkk ak bu ñaareel su kàbbaree lu ëpp loola nag ka àndal moom ci julli ga bu mu ko topp ca yokk ba moom mi maamum daal na yem rekk ci na limu kàbbar ya tollu bu mu topp ilimaan ci di ci yokku lu ca bokkut soo dikkee bëgg a bokk ci julli korite mbaa tabaski fekk ilimaan am ay kàbbar yum la rawe da ngay wax allahu akbar mooy sa kàbbaru armal nga ànd ak moom te takk bu baax li mu kàbbar ya nga ànd ak moom su ay kàbbaram matee nag ba mu tàmbalee jàng yow nag nga daal di gaaw àggale say kàbbar ba mu toll na lim ba di toll ci misaal boo ñëwoon fekk ko ci rakk bu jëkk ba mu weesu ca juróomi kàbbar ba dese ñaar nga ànd ak moom ñaar ña su tàmbalee jàng rek yow nga daal di kàbbar juróom ya nga xam ne moom la la rawe soo ko fekkoon ci rakkab ñaareel ba itam nga xam ne bu jëkk ba raw na la kon na ngay kàbbar kàbbaru armal daal di ànd ak moom kàbbar juróomi kàbbar yi nga xam ne moo ko dese su sëlmalee ba nga jóg nag ba taxaw ci ràkka ba ngay fayee wax ji gën a wóor mooy allahu akbar ba ngay jógaale da nga cay tegaat yeneen juróom benn ko defee mu juróom ñaar korite mbaa tabaski dañuy julli ba noppi door a xutba sopp nañu ñaari xutba yi topp ca julli ga te bañ a jiitu julli ga suñ jiitaloon ñaari xutba yi sax dañu bëgg buñ jullee ba noppi wëlbatiku baamuwaat leen ndax ñu topp ca julli ga sopp nañu ilimaan ji mu ubbi ko allahu akbar xutba bu ci nekk balaa tàmbali xutba bu jëkk bi kàbbar bu jeexalee xutba bu jëkk bi balaa tàmbali bu ñaareel ba kàbbar ak sax ci biir xutba yi muy kàbbar kàbbar yi amul yemukaay waaye sopp nañ mu def ko lim bu tóol ni ki ñett mbaa juróom mbaa juróom ñaar mbaa juróom ñeent daañu sopp itam ñi nga xam ne ñoo fa teew ñu déglu xutba yi te bañ di wax leneen mbaa di séentu leneen ku dikk nag fekk ilimaan julli bay xutba dañuy sopp kon mu toog déglu xutba ya te bu ilimaan sëlmale nañ ko waxe woon bu dee kenn bu dee ñaar ak bu dee mbooloo na kenn ku ne jóg jullit boppam jullit korite ga mbaa jullit tabaski ga kañ bañ koo defaat mbooloo ndax xës nañ def mbooloo ba noppi sopp nañ korite mbaa tabaski nga xeeñoo xet gu neex waaj itam waaj taay wu rafet xeet yére nag lu ci gën a yees gën a rafet rek gën a baax moo xam daal ñuul moo xam daa mel neneen bu dee ajjuma moom yére yu gën a weex nañ ñu gën a taamu waaye bu dee korité mbaa tabaski moom yére yu gën a rafet rek la ñu gën a taamu sopp nañu ku sangu ci korité ak tabaski ca ngaay lu mel ne ni ñu sangoo janaaba ñoo bokk aw meloo waxtu yi nga xam ne ci la ñuy nodd nodd gu jëkk gi nag ci la waxtu cangaay la tàmbali waaye la ci gën nag mooy nga bàyyi ba fajar fenk nga door a sangu mel ne nga bàyyi bañ salaatu nga door a sangu bu fekkee sangu xaju fa ci diggante bañ salaatoo ba nga bëggee julli ji julli suba ga man ngaa bàyyi rek ba julli ji suba ba ñëw bala ngaa dem nag ca jullikaay ba door a sangu sopp nañu booy dem ci julli korite ga mbaa tabaski ga nga dox ak sa tànk te bañ a dugg dara bañ a war dara buñ jullee ba noppi nag ba ñibbi rek des moom jaamu yàlla gi jeex na man ngaa war man ngaa dugg dara sopp nañu ba tey yoon wa ngay aw booy dem ci jullikaay ba booy wàññi ko aw ci weneen ndax yaar yoon yépp seere la su bis pencee seere la lu baax loolu nga def guddi gi nga xam ne ci suur sa mooy nekk korite mbaa tabaski guddi googu mooy guddi xeet sopp nañ ko ko màggal ci julli ak jàngal xuraan ak tudd yàlla wala julli ci yonante beeg yu baax yooyu am na addis bi ñu fay nettali di wax naa man ahyaa laylata yil-iidi muhtasiban lillahi taala lam yamut qalbuhu yawma tamutul qulubu ku dundal guddi korite tabaski te yàlla rek tax sa xol du dee ca bis ba xol yi dee dañuy sopp nag julli korite mbaa tabaski ñu defe ko ca àll ba xam ne ilimaan jeeg mbooloo mi bu yoor yooree dañuy génn dem ci àll ba jullee fa jullit korite ga mbaa tabaski ga dañu fit na ku ko defee ci jàkka mbaa jumaa lu may nga xam ne day taw mbaa ngelaw lu bare bari tax mu ne su ko defee ci fu bokkut ak jàkka ja mbaa jumaa ja màkka rek lañ ci waxal àtte boppam mooy sopp nañ jullit korite ak tabaski ñu defee ko foofee ca jàkkay kaaba ga ndax jëmmi xool kaaba ga rek dañuy ak jaamu yàlla waaye fu bokkut ak foofu rek danañ sib ñu jullee korite mbaa tabaski ci jàkka mbaa juma lu may nag day taw mbaa ngelaw lu bare bari loo xam ne neexut a jullee ca bitti sopp nañ itam ku génn di julli ji korite mbaa tabaski muy wax allahu akbar te di ko yëkkati ca kaw bu àggee itam mu sax ca di ko def rek ba ilimaan ñëw ba ñuy tàmbali julli gi mu door a bàyyi kàbbar ya bu dee korite moom boo xëyee suba dañoo bëgg bala ngaa dem ci jullikaay ba nga lekk mbaa nga naan bañ xam ne yow mi wari nga dañ laa digaloon nga woor nga woor nga digalee wori nga wori te bañ xëy rek wuti fa ñu jullee fekk musoo dara dara mel ne ku woor bu dee korite moom loolu taamuñ ko la ci gën nag mooy nga def ko tàndarma te muy tàndarma ju ñor te tooy bu fekkee amoon nag tàndarma ju ñor te tooy tàndarma ju wow ja baax na su amul nag luy xeetoog tàndarma mën naa góox rek góoxi ndox waaye daal bu wuuteeg nag tabaski tabaski moom dañuy sopp boo xëyee mel ne ku woor bañ a lekk bañ a naan ba julli ji ba ñëw bañu ren di tabaski ma ñu indi nag lu bokk ca res wa nga doge ca loolu dañ koy def ngir roy ci yonante bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam bu dee tabaski moom bisu tabaski bi boo jullee tisbaar bu sëlmal la ca tàmbalee julli farata goo sëlmalati bala ngaa tasab ñu taamu nga def kàbbar yi boo tàmbalee ci bis bañ tabaskee di wàññi ba ba ko ñeenteel boo jullee suba ba def kàbbar yooyu nag foofu nga ko yemale ba fekkewaat ko ca déwén sa incha allah kàbbar yi nag am na ñaari nett li benn nett li bi moo gën a yomb te it neenañ moo gën a dëgër mooy dañ ko wax allahu akbar allahu akbar allahu akbar ñetti yoon bi ci des nag mooy nga wax allahu akbar allahu akbar teg ca laa ilaha illallahu tegaat ca ñaari allahu akbar yoo xam ne da nga koy ubbi koo waaw ne wallahu akbar allahu akbar teg ca walillahi alhamdu xam ne ko na ngay wax allahu akbar allahu akbar laa ilaha illallah wallahu akbar allahu akbar walillahi alhamd ñaar net lii boo ci topp rek mu baax bu ñu nee nag képp ku ñëw farataal ci moom ajjuma rek sunnaal nañ ci moom julli korite tabaski julli tabaski yi moom bu fekkee kooka di at duñ ko sàkku ci moom ndax day fekk muy sànni jamre xàq ba ci yoor yoor boobu loolu moo tax nag ndegam moom mu ngi ci aj rek mu nekk ca sànni jamre day sunnaal ci moom muy dem di julli ji julli tabaski ga